voilà niñ ko waxoon ne lañ ko defee Amadou Ba waxoon ne la boo ñëwee Ngor doo neex la fii jigéen ñéppa a génn ñëpp ñëpp a génn ñëpp kenn ñu yeb ñaari yoon boo bëggee koo jàll dama sa xaj voilà ñun ñëpp ñëw nañ kase Sonko rek ñun Sonko rek waaw ndaxte Sonko tax ñu waaw waxal waaw Sonko tax ñu su rek ah ana Amadou Ba daw na. daw na dàq nañ ka. ah. dàq nañ ka. daw na waaw waaw. jigéen ñee ko dàq Amadou Ba jigéen ñee ko dàq tas leen vidéo bi. jigéen ñee ko dàq même armée sax bu ñu duggee dañ koy yokku waaw naa que yokku nit ba armée nga sañu ruus ñu fa tëdd waaye ñoo ko def moom la moo def suñuy armée sax la ma xamul. waaw ah, waay. mission accomplie ah nii lay def nii la de gars yi Ba di yàlla fi ñëw ne da ngay jàll see wan na ne la fii tu n'es pas tu n'es pas la bienvenue voilà mu ngi noonu yóbbul boobu nag. ok jaajëf. focus rek. focus rek. Sonko 2024 loolu yëpp a génn nag. kenn duñu yëpp ñaari yoon. mu leer.